ndeysaan arbitre sifflé na ci diggante ki nga xamante ne Yankaw ak Thiat Daouda Fall ndeysaan Yankaw Thiat Daouda Fall ñoom ñaar ñi Yankaw moom moo féete à ñaar ñi ngi lewtoo ñoom ñaar Yankaw Yankaw Thiat Daouda Fall Thiat Daouda Fall yaa do waaw waaw wàññil na kaw oh, Yankaw Yankaw Thiat Daouda Fall ndeysaan bëre bi day gaaw caxabal ba o oh. Yankaw Thiat Daouda Fall waaw waaw Yankaw waaw o wala xelalaaw waaw oh. xoolal Lamine Golo ndeysaan moo koy indi kii kii arrêté raar Thiatou Daouda Fall nekk rakk ci lees do